close la mënoon na ne këru cagatu lañ fa doon def jël ay xale yu jigéen di leen jaay ndaxte képp koo xamante ni yaa ngi doon liggéey ca Sweet Beauty sa tur joxuñu la ko kii di euh, euh, aji Sarr ba mu fa nekkee ay Aïcha lañ ko doon woowee ñeneen ñi dañu changé woon seen tur ba ci Ndeye Khady Ndiaye premier touram sax Ami Diop la waxoon la tudd dinaa leen indil vidéo bi léegi mais balaa loolu dama bëgg ñu ñëw ci benn vidéo boo xamante ni kii di Ndeye Khady Ndiaye def na ko chaque fois ay kàddoom day waroo te gisagoo benn waa APR euh, waa PASTEF bu ci mës a def live wala benn Baara Ndiaye bu toog wal fajri wala dàmbooj wala kii nga xamante ni mooy Soybu wala Sanjogu taxaw ba génnee ci argument xamal ni que kii lu mu waxoon ak li mu wax fii méngoowul sénégalais dama bëgg ñu déglu xel discours kii nga xamante ni mooy Ndeye Khady Ndiaye benn par benn nañ ko déglu audio pare ma tegal leen vidéo bi. aju mi ngi naan 31 décembre 31 décembre Sonko taxawul ci kër gi. 31 décembre aju ko fi. 31 décembre fi la ko fekk si kër gi fii mais waxal mu def jour boobu aji def na woon damay dem suñu kër. Ah, moo tax mën a fekk ko fi nag. dafa xëy suba teel ne ma damay dem suñu kër ma ne ko yéen moom 31 décembre kenn mënu leen a kay déjà ñu xol mu dem ba ci premier ba ci deux aji dogo ñew ci si kër gi te dégg naa si nit ñi ñu ne aji 31 décembre lañ ko jëkk a ñaari yoon suba lañ ko violé si kër gi kana loolu mo nekk ay fen te aji ma xamal leen benn affaire hmm. aji dafa mën a duul mën a duul goo xam ne nii 31 décembre laa accouché maa ngi accouché benn hôpital bu ñuy wax Gaspard Camara aji Sarr ma bàyyi ko su kër ga

jour 31 décembre la dem yoonam ci laa ko ne yéen 31 décembre seen far yi kese mu ne aji dafa mën a fen moom Ndeye Khady Ndiaye moo wax loolu 31 décembre nekku fa nee na si la dégg ni ñu aji sa Sonko mi ngi ko violé jour 31 décembre Ndeye Khady Ndiaye ak garde corps am bi Ibrahima bari nee nañu 31 décembre Adji Sarr nekkul ci kër gi nekku fa le 31 nekku fa le premier le 2 la Adji ñëwaat Ndeye Khady Ndiaye moo waxaat ni que moom la 31 décembre la accouché hôpital Gaspard Camara Adji Sarr la bàyyi këram Ndeye Khady Ndiaye moo wax loolu Baara Ndiaye Dame Mbodj euh, Karim Xrum euh, ba Soyoubou yéen ñii di défendre Ousmane Sonko Mara Niass euh, Kay Fof Atoumane dama bëgg ngeen tontul ma ci question bi kii naan Adji Sarr nekku fi 31 décembre nee na 31 décembre la accouché Adji Sarr la bàyyi këram wax yooyu ban moo ciy dëgg ak kan la ci war a gëm. loolu laa bëgg ngeen ciy def commentaire chaque jour moo gën ngeen di seeti di ay Tange Tandian wax na ci lii jabaram ex sa jabaram jox na leen nangam ngeen koy dagg vous avez tellement de boulot à faire que leneen nañu demaat ci beneen tontu boo xamante ni Ndeye Khady Ndiaye waxoon na ko ba mu nekkee foofu ca section de recherche déglu leen bu baax Pape Alé lu mu wax ci procès verbal bi. ñu ne ko est-ce que pour massage Ousmane Sonko yow yaa désigné musuma wax ne Adji Sarr yow yaay toppatoo Sonko. ñoo ko déggandoo Pape Alé Niang nee na biñ ko laajee ndax yow yaa désigné Adji Sarr pour muy defal Ousmane Sonko massage am Ndeye Khady Ndiaye dafa tontu ni déedéet musuma ko désigné loolu la Pape Alé Niang wax ci PV bi nañu déglu ju tontu encore bi nga xamante ne Ndeye Khady wax na ko. Adji Sarr man maa ko boole ak Sonko kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yooyu nga xamante ni ndey Khady Ndiaye yëkkati na ko ban moo ci waroon dëgg kon nañu jàpp ni dossier Adji Sarr Ousmane Sonko ba mu laloo ba tey kii di Ndeye Khady Ndiaye waxu ci benn yoon dëgg journaliste d'investigation lañ nag tey su ngeen gisee Ndeye Khady Ndiaye làqatu ci ginnaaw waa Pastef pour défendre na cause yi pour sànni Adji Sarr parce que dafa xam na ni que même su Ousmane Sonko Adji Sarr seen projet taxawul moom yoon da koy dal ndaxte li mu doon liggéey teguwul ci yoon ba ca njëkk violation couvre-feu def na ko vingt une heures passées muy ubbi ba ca topp mi ngi jël ay xale doomu jaamur di leen fanaanloo ci biir këram di leen cagatuloo di leen jaay ba ca topp mi ngi def proxénétisme loolu yëpp loolu daf ko daan mu xam ne ni ko yoon mën na daal ci kawam ci biir loolu nee na comme waa Pastef yuuxu nañu gars yi génnal Ousmane Sonko xaaral ma deste campé ci Ousmane Sonko sosal waa pouvoir bi de ce fait que coow lu lu mu mënti am même su Adji Sarr passé man waa Pastef dinañ ma défendre mais Ndeye Khady Ndiaye tey jii may wax ak yéen juge daf ko war a placer sous mandat de dépôt warul nekk ci mbedd bi yéen a déggandoo loolu ma bàyyi nag léegi ngeen seetaanal vidéo bi seen bopp. Adji mi ngi naan 31 décembre 31 <laughs> Sonko taxawul ci kër gi. 31 aju ko fi. la ko fekk si kër gi fii jour boobu aj def na woon damay dem suñu kër. ah moo tax mën a fekk ko fii nag. dafa xëy suba teel ne ma damay dem suñu kër ma ne ko yéen moom 31 décembre kenn mënu leen liggéeyloo seen fari ngay ne dem mu dem. aji hmm. ñëw 31 décembre ñëw mu xool mu dem ba si premier ba si deux bi aji doog a ñëw si kër gi. te dégg naa si nit ñi ñu ne aji 31 décembre lañ ko njëkk a violé ñaari yoon suba lañ ko violé si kër gi. xanaa loolu moo nekk ay fen te aji ma xamal leen benn affaire. Hmm. aji dafa mën a duul mën goo xam ne nii. décembre laa accouché maa ngi accouché benn hôpital bu ñuy wax Gaspard Camara. aji Sarr ma bàyyi ko su kër ga 31 décembre laa fa bàyyi si guddi parce que bi ma amee doom foofu dinaa daal ñëw sa kër ga nag léeg-léeg di sangu di ñëwaat ci hôpital bi léeg-léeg. ñu ne ko est pour massage Ousmane Sonko yow yaa désigné aji Sarr pour mu koy defal. mu ne déedéet musuma wax ne Adji Sarr yow yaay toppatoo Sonko. aji Sarr man maa ko boole ak Sonko fi mu koy maase. comprendre nga. di ñaax joor di